daaw daaw ñu ko woon am am am waaw waaw waaw. waaw waaw. dëgg la dëgg la dëgg la surtout feebar bi moo tax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbaye. yal yàlla dimbali. ñu ñu aar aar. gën leen ko ko kattanal gën gën guddal aw fan. amiin amiin. ñu yal yàlla day képp képp koo xam ne nii nii ñu ngi gàcceel. ngir ngir yàlla lan ko. yàlla yàlla yàlla ci gàcceel. amiin amiin. loolu lañ dugal dugal yàlla yàlla subhanahu wa taala lépp lépp ñu yàlla yàlla yàlla. amiin amiin al al al al alquran naaf naaf kuy dafa am ñaar ñaar ñetti palaas palaas yoo xam ne palaas jaakaay la palaas ñaan ñaan la. ci ñaan ñaan yàlla nga yàlla def ko delloo delloo. donc donc boo ci boo jëlee al al ndam bare bare. yàlla yàlla na nga ñaan. téere téere mag mag xam nga ni daf daf foog foog lépp ngi ci ci. soo soo ko daaw bu ñaan jàpp ne jaamu yàlla yàlla. nee na nee na nga ñaan soxla soxla. boo boo jëlee bare bare. foo foo fekk toog toog. soo loolee li nga gis suuf. was was bi wax tey. ñaan Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. amiin amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon loolu nag lii lii lii ko tëjee ak ñoom mooy mooy ko tëjee. waaw am na ñu war pare pare. nga yokk yokk. lépp lépp am am lépp lépp moom day yokk rek wala déedéet amul amul. bon daa ko daa ko tey nag. loo loo ko amul amul rek nga xamante ne yàlla war a war a lépp lépp. incha allah. adduna adduna nga que li nga am ñaar ñaar ñaar ñaar waa yi rek ci lañ ci lañ la war. d'accord d'accord.